tey dama dégg ca marché ba ay jaaykat yuy woote naan ay wa tamaate ay wa uppukaay kaay leen jënd vermicelle mari ndax dégg nga li sa seex bi wax lan la jaaykat yi doon wax suñu xat yi ñu déglu itam mën nañu jaaraat ci li ba du wax sànq ay wa tamaate ay wa uppukaay kaay leen jënd weer mi sel <laughs> Badou yi tamaate uppukaay ak weer lañu doon jaay beneen yoon su ma jaaree marché dinaa ci jënd te mooy araf yi ci baatu tamaate u mooy araf yi jëkk ci baatu uppukaay wa mooy araf yi jëkk ci baatu wermisel xale yi yéen ak seen xarit yi ñuy déglu baamtu leen li jaaykat yi wax. ay wa tamaate ay wa uppukaay kaay leen jënd vermicelle. waaw kay xale yi waaw kay suñu xet yi ñuy teewlu léegi wax leen ma araf bi tàmbali turu njaay yi jaaykat yi doon wax. te la baatu tamaate tàmbalee. u la baatu uppukaay tàmbalee. wa mooy araf wi jëkk ci baatu vermicelle. amuleen moroom xale yi kon tey dañu liggéey ci araf yii di të u ak wë samay jarbaat ak sunu xadi yi ñu déglu ñoom xadi ca boof ma jigéen ca mbulkayel rosemary ca boyaar yaama ca njooñik binta ca bulel ak seen moroom yi léegi nag dañu tàggatu ci laal ay araf tudd leen bu gaaw tey ci yan araf la liggéey te araf yu jëkk ci baatu tamaate u araf yu jëkk ci baatu uppukaay wo araf yu jëkk ci baatu wermisel waaw kay léegi nag xët juróom-ñett ci seen téere kër ngeen di jëfandikoo mooy xët wi ngeen ubbi woon ci yëngatu bi weesu ubbi naa sama téere ci xët juróom-ñett. nijaay man tamit ubbi naa xët wi. yaakaar naa ne seen xat yi itam ubbi nañ seen téere ci xët wi. araf yi ñuy jàng tey ñu ngi topp ci arafu së. samay jarbaat ak suñu xat yi ñu déglu na ñëpp teg seen baaraam ci araf wu jëkk wi topp ci arafu së. ndax yéen ñëpp teg ngeen seen baaraam ci suufu araf wi topp ci arafu së. waaw.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 araf wi topp ci arafu të mooy u yéen ñëpp wan araf ngeen joxoñ u waaw kay xale yi léegi nag ku nekk war nga teg sa baaraam ci suuf araf bi topp ci arafu u samay jarbaat ak suñu xar yi ñuy déglu ndax yéen ñëpp teg ngeen seen baaraam ci suufu araf wi waaw teg nañu suñu baaraam ci suuf araf wi topp ci arafu u araf wi topp ci arafu u mooy wë yéen ñëpp wan araf ngeen joxoñ wa léegi nag xam ngeen arafu të u ak wë dañuy tàggatu ci laal araf yi te di leen tudd maa ngi jëkke damay laal araf wu nekk te tudd ko të u wë sama jarbaat ak suñu xarit yi déglu léegi yéenay laal araf wu nekk te wax nu mu tudd damay wàññi ba ñett benn ñaar ñett te u wa jalbaat baamtu leen te u wa léegi nag nanu bàyyi suñu xar yi ñu déglu ñoom mëjoob ca peex wuri ca meri misel ca jurub nefu ca ngëtu maalik aliwu ca tuuba beleel moodu ca kër tafa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 aywa yéen ñëpp laal leen të jàng ko ci kaw të leen ko të waaw leen kumba waaw leen góor yéen ñëpp laal ngeen të jàng ngeen ko yëkkatiwaat leen seen baaraam aywa yéen ñëpp laal leen u te jàng ko ci kaw u waaw leen kumba waaw leen góor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 su fekkee baat bi ma am am na tekki ci wolof ma xam ne ni ma boolantee baax na waaw kumba sama jarbaat léegi nag yéen ak seen xarit yi ñu déglu ñi féete galoya paate càngaay kolobaan tànd mbudaay ak yeneen gox yi da ngeen war a baamtu doggi baat yi may tudd yéen ñépp baamtu ta ma tee ta ma te badu sama jarbaat léegi nag da di fàttali suñuy xarit yi naka ngeen di boolante ay dogi baat ngir am ab baat nan ngay def ba boolante dogi baat ta ma te ngir am baat nijaay damay boolente dogi baat yi ci sama xel daldi tudd baat bi ma am baat bi mooy tamaate aa ah. gis ngeen boolante ay dogi baat defar ci ab baat jafewul léegi nag nanu bàyyi suñu xel yi ñuy déglu ñu defar ab baat ci dogi baat yi ma leen di jox sunuy xarit yi baamtu leen up pu kaay sunuy xarit yi ñu déglu defar leen ab baat ci dogi baat yii up pu kaay suñuy xarit yi wax leen nu ban baat ngeen defar waaw upp kaay ñu ngi ko defare ci dogi baat upp pu kaay amuleen moroom amuleen moroom léegi nag sunuy xarit yi déglu rajo bi ñoom ñooy boolante yi dogi baat wer mi sel su suñuy xarit yi wax leen nu ban baat ngeen am ci dogi baat weer mi sell samay jarbaat ban baat ngeen am ci dogi baat weer mi sel weer mi sell tigi weer mi sell waaw kumba mari waaw góor badu léegi nag suñuy xar yi ñu déglu boolante leen doggi baat yii de fa ral suñuy xarit yi waxleen leen nu ban baat ngeen tabax samay jarbaat ban baat ngeen am defaral tigi defaral amuleen moroom léegi nag suñuy xarit yi ñuy déglu boolante leen yi dogi wa xa ti suñuy xarit yi wax leen ban baat ngeen defar samay jarbaat ban baat ngeen defar ci yi dogi baat wa xa ti waxati jërë ngeen jëf yéen ñëpp boole ngeen ay dogi baat defar baat yu jub Marie ndax mën nga noo fàttali baat bi nu jàngoon ci sunu émission bi weesu seen xarit yi ñu déglu ummi ca Sibasoor roqee ca Njaañ Madi ca Kélimaan Seex ca Sàmbe werinuk ca Jiwaalo Elimaan ca Lugge ak yenn xale yi nekk ci yenn gox yi ñoom it war na nu jéem nijaay baatu kuuy la nu jàngoon waaw kumba Mari badu jéem a defar kàddu gu am baatu kuuy seen xarit yi ñu déglu ñoom it war nañu jéem moytul kuuy mi dafay mbëkke amuleen moroom jàmbaar ngeen ci sunu lesoŋu tey dinañu ci jàng baat bu bees baat bi ñuy jàng tey mooy wéq samay jar baat baamtu leen ko wéq sunuy xarit yi ñuy déglu baamtu leen baat bi waaw leen kumba waaw leen góor weq mooy dóor ak tànk samay jarbaat waxleen leen lan la weq di tekki nijaay weq mooy dóor ak tànk suñu xar yi ñu déglu yéen tamit wax leen lu weq di tekki amu leen moroom léegi nag damay jëfandikoo baat bi ci ak kàddu déglu leen fas wi dafa soxor mën na la dóor aw wéq samay jarbaat baamtu leen kàddu gi fas wi dafa soxor mën na la dóor aw wéq waaw leen góor waaw leen kumba léegi damay jëfandikoo baat bi ci geneen kàddu moytul bala la mbaam mi di dóor aw wéq suñuy xarit yi ñu déglu baamtu leen kàddu gi amuleen moroom mari léegi dama lay jox ab laaj seen xarit yi ñu déglu dañu war a teewlu bu baax te xalaat ci tontu li aywa aw wéq ban cër ci yaram lañu koy defee aw wéq tànk lañu koy defee waaw kumba mari badu léegi yaay tontu ci sama laaj bi seen xarit yi ñuy déglu ñoom it dañu war a teewlu bu baax te xalaat ci tontu li ay ca fas yan tànk lay faral di jëfandikoo ngir wéq tànki gannaaw lay faral di jëfandikoo ngir wéq amu leen moroom xale yi joxe ngeen tontu yu baax ci laaj yi yaakaar naa ni seen xarit yi déglu ñoom itam joxe nañu tontu yu baax léegi nag mari yaa war a defar kàddu am baatu wéq seen xarit yi déglu ñoom tamit war nañu jéem dafa doon football ñu weq ko mu gaañu waaw kumba mari léegi badu ay ca jéemal defar kàddu gu am baatu wéq seen xarit yi ñu déglu ñoom tamit war nañu jéem ku dóor aw weq sa moroom góor gouvernement école bi dafa lay teg daan amuleen moroom samay jarbaat sunuy xarit yi ñu déglu ban baat la ñu jàng tey weq waaw leen kumba waaw leen góor samay jarbaat sunuy xarit yi ñu déglu lu weq di tekki nijaay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 bukki séen ko ne ko sama waay noo tudd man gëléem saar laa tudd yow de xam naa ni ni nga ree ni nga ñoole xam naa ni man ngaa xeex si xeex moom dara laa ci mënul tey moom dinga xeex bettu ma la de fi gëléem di bëgg a siggee rekk bukki dugg ci tànk yi jaxase ko rey ko lekk ko ba borom gëlëm gi ñëwee gis ndesit yi mu ne ah lii bukkee ko war a def waaye taxawal mu dem ca kër ga jëli fasu naaru góoram yeew ko fa gëlëm saar yeewe woon bukki jaaraat fa seen fas taxaw mu ne see am naa jeneen waaye kii de moo gën a gàtt bukki ne ko sama waay noo tudd man naaru góor waaw yow ndax man ngaa xeex xeex daanaka dara laa ci mënul ah déet dangay man dara kay man daal daanaka su may xeex damay wane ginnaaw bukki gën a kontaan ne ko xeex ni wane ginnaaw man noonu laa mëne loolu mënuma koo gëm ah léegi kay mën naa laa woon ginnaaw bukki ne ko waaw mu ngi bëgg naaru góor wan ko ginnaaw ba mu jekk pooj ba naaru góor wan bukki ginnaaw ba mën koo dóor aw wéq bukki jege si ba nekk fa nga xam ne fa la ko naaru góor soxlaa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 nijaay nettali bi aw léeb la bukki dafa doon xeex ak mala yi di leen lekk ba far daje ak fasu naaru góor fasu naaru góor wequ ko waaw kumba mari badu wax nu jëm yi gën a fes ci nettali bi seen xarit yi ñu déglu ñoom it war nañu jéem a tontu ci laaj bi nijaay jëm yi gën a fes ci nettali bi fasu naaru góor la bukki gëléem ak boroom gëléem gi waaw góor badu xale yi yéen daal jàmbaar ngeen waaw kumba yawit mari léegi nag tontu ci laaj bi naka la àll bi meloon seen xale yi ñuy déglu ñoom it war nañu jéem a tontu ci laaj bi àll bi dafa seddoon lool am ay garab waaw kumba mari xale yi yéen daal jàmbaar ngeen waaw góor yow it badu léegi nag tontu ci laaj bi ci topp naka la gëléem doon doxe ak a lekke seen xarit yi ñuy déglu ñoom it war nañu jéem a tontu ci laaj bi gëléem dafa doon topp garab yi di dox di lekk ndànk waaw góor badu xale yi yéen daal jàmbaar ngeen samay jarbaat yéen suñuy xarit yi ñuy déglu yegsi nañu ci njeexteel liggéey bi ñu waroon ci nettali bi wane ngeen ci njàmbaar gu rëy rëy tàccu leen seen bopp waaye. yéen suñu xar yi ñuy déglu laataa ñuy tàggatoo ak yéen bëggoon nanu ngeen tànn ab diir ginnaaw émission bi ngir jàng li nekk ci xët fukk ak juróom-ñett ci téere këru CI wala xët fukk ak juróom-ñett ci téere këru CP ndax jàpp ngeen li ma wax xale yi. waaw nijaay xët fukk ak juróom-ñett ci téere këru sëy yi ak xët fukk ak juróom-ñett ci téere këru seppe yéen waajur yi bu émission bi jeexee mën ngeen def ak seen doom po mi tudd maay kan ngir def po mi nag mën ngeen jëfandikoo lépp lu xale bi xam ay mala ay jumtukaayu njàng walla misik ay meññeef ay lujum ay yëfi kër ak yu ni demee yoon wii ngeen di topp bi ci jëkk waxal xale bi dañuy jàng yëngute bu tudd maay kan yëngute bu am solo la ndax dafa lay jàngal naka ngay jëfandikoo ay tegtal ba jëli lu ñu la xamul dañu koy jëfandikoo ci njàng ngir gën a dégg ay nettali ci nettali yi kiy wax walla kiy bind du lépp lay wax am na ci loo xam ni yaa koy jëli soo noppee nee ko danuy caxante damay xalaat am mala du ma la wax turam danga ma war di laaj ngir jëli turam laaj yépp dañu war a tàmbalee ndax niki ci misaal ndax mala mi ñeenti tànk la am waaw wala déet rekk laa war a tontu juróomi laaj nga am soo laajee juróomi laaj boole ko ak di tontu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 jàllale ci rajo gox-goxaat anam bi gën a ข้ามค